tey jii nag ñu ñëwoon doon leen présenté lenn ci suñuy produit pour mauvaise haleine traitement mauvaise haleine bi nag boo leen ko xoolee dafa yaatu ci gémmiñ gi ci put bi ci biir yi infection yi yooyu yëpp dafa nekk li xam te ni ay cause la lu mën a jur mauvaise haleine kon nag traitement bi yëpp lañ lay jox looy broso pour gémmiñ gi moo nekk nii buy dindi lépp li nga xam te ne day indi xetu gémmiñ comme ni ma ko waxee dafa yaatu am na nga xam te bi la ñenn ñi dañu am infection ñeenti sachet yii moo koy faj ci biir bi ay garab la ñu naan poudre la bio naturel ak li nga xamante ni moom lay àndal ndax nee naa leen mauvaise haleine dem na ba ci ay ngelaw seytaane seen biir day ballonné di rëy te loolu yëpp rek day doy waar kat yooyu day dem ba di feeñ ci sax ci bakkanu doomu aadama nit ki di ko noyyi kon garab yooyu képp ku ko soxla mën nga ñëw fii ci dakaar seen boutique univers bio nekk Géejawaay arrêt de Balès kër Serigne Lamine Bara Fall mën nga ñëwoo ci numéro yi ñu joxe 77 160 93 93